يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا هبني بجاه من هو المختار دنيا وأخرى خير ما أخرار وجل جابا بيننا وبين كل أذى ولتكفي عنا الحينا lislaam séparé wul luñ naan lii mbirum àdduna la wala mbirum alaaxira maanaam dëgg-dëgg luñ ne mbirum àdduna la rek nit ki man jullit bi mën na koo walbatiku am ci yàlla ci yéeneem luñ jàpp ne lii politique la tey nit ki mën na caa yéene yéene joo xam ne ak jaamu yàlla lay doon ci moom mën naa am mbir moo xam ne dañuy mbir li kat mbirum diine la képp mbirum àllaaxira la waaye ci yeneen nit ki tax mu mbirum àdduna kese maa nit ki mën naa joxe nit ki mën nay julli nit ki sax mën nay jàng xam-xamu diine ca fekk te la muy def du mbirum àllaaxira waaye mbirum àdduna la ndax àdduna la ci yéene kon diine lislaam moom yéene daf cee am solo ci jëf yi li nga yéene moo tax innamal amalu binniyaati yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon wa innama li kulli mri'in ma nawa mooy jëf yi li li leen di dëgg-dëgg déterminé mooy yéene ji nga xam ne moo ci moom la ci nit ki am kon ci lislaam dañuy wax ne diggante àdduna ak li ñuy tuddee allaaxira séparation bi loo xam ne àdduna kese la ak allaaxira kese la dafay mel ne ci bu dee ci jëf yi day dellu ci nit ki jubluwaay bu mu ci jublu ndax lépp lu nit di def ci kaw suuf dafa war a dugg ci bu dee ab jullit bu gëm yàlla dafa war a dugg ci ndigalul suñu borom wa maa xalaqtul wal insa illa li yabudun wa maa umiru illa li yabudullaha muxlisina lahu din kon dafa mel ne li tax nit ki ñëw ci kaw suuf mooy jaamu yàlla li tax nit ki ñëw ci kaw suuf mooy jaamu yàlla leneen lu muy def dafa war a doon lu koy dimbale ca jaamu yàlla googee bu boobaa loola day daal di nekkuk jaamu yàlla maanaam nit ki bu dee liggéey ngir dund dund boobu muy dund su fekkee ne liggéey bi muy liggéey ngir dund ngir mën a jaamu yàllaa tax liggéey booba day daal di mujj nekk ak jaamu yàlla ci moom ndax am na qaayida usuliya boo xam ne règle ci wàllu jurisprudence buy wax ne lépp loo xam ne moyen la bu lay jëmale ci lu baax moyen booba day daal di baax maanaam wala boog lu baax lii lii tax lii tax mu am nga xam ne munta ñàkk lu baax loola am loola day daal nekk condition boo xam ne day daal nekk lu baax moom it mm-hmm. maanaam li lay tax a mën li lay tax a mën a julli masalan mooy nga wuti ndox laab comme wuti ndox ga boo koy def jëmmi wuti ndox googu mënoon naa nekk leneen waaye ginnaaw ngir nga julli mën a laab jullee tax day daan nekk ak jaamu yàlla ci yow mm-hmm. kon jëf yi lépp lu jullit bi def ngir ne ngir mën a amal jaamu yàlla gi ko yàlla diggal ci kaw suuf day daal di nekk jaamu yàlla ci moom kon lislaam li mu gis mooy liy taqale diggante jëf joo xam ne mooy li ñuy natte jëfi àdduna ak jëfi àllaaxira mooy la tax nit ki la poussé nit ki ci jëf ji mooy albaaxis mooy lan mu ko motiver mooy lan mooy intention ca jëf joojee mooy li ñu tuddee xidmatul muridiin maanaam murid nag ñoom seen xidma ndax dañuy dégg naa murid dañuy xidma wala man damay xidma foofu it danañ la fi laajaale maanaam li nga xam ne day doon appliqué et à foofu yi diggante boobu noonu ko leerale sëñ bi waaw rasulullah min ilahi kaw ni xadima wa abdalahi loolu itam suñu boroom moo ko moo ko moo ko ak yonent bi ñu ko xaalal yoonu bokkul ak yoonu gaay ci ni ñuy wute yàlla maanaam xam nga gaay yi ni ñuy wute xam nañ ko te ñoom ñëpp ñu bokk yoon xëy na bokkuñu ay degré waaye yoon wi benn da xam nañ ko ci taarif du sow sëñ bi nag jaaru ci woowu yoon yoon bi mu jaar na moom dañ ko ko dañ ko koo xàllal maanaam maanaam jag ak jagleel la waaw te mu te mooy nii ma la ko waxee léegi nag euh, moom ni mu ko appliqué moom sëñ bi da ko appliqué ka mën nun nag mu bàyyil na ko nun nag nu war koo appliquer kay taalibe moo tax méthode appliquer déjà par sëriñ bi mais à appliquer ba dinay tukki dañ ko war a appliquer loolu lan mooy loolu moo di ne liggéey liggéeyu murid yi seen xidma mooy méthode bii sëriñ bi teg te te mu jaar ci béygi ci yàlla foofu la ñu jaarale foofu foofu la murid yëpp lépp ku ci yëngu commencé ko ci la ma la wax ba ci isaatul ada ak domaine boo mën a yëngu action boo mën a def te te dajale surut yi maanaam bu yeboo ngay bindkat wala ngay jàngale jàngalekat wala ngay e, jàngale alxuraan wala ngay e, bind wala ngay tuxali xasaayit wala ngay jàngale xasaayit wala ngay béy ca daara ja ngay jàngale ndongo wala ngay tabax wala loo action boo mën a def hmm, e, ci ci ci ci dajale ci surut yooyu ma la wax suruti xitma yooyu mais loola mooy yaa ngi appliqué méthode sëriñ bi li ma bëgg a wax mooy nan nan nan xool ni ñu définir xidma ñu ñu rey ko kon sëriñ bi dafa ñoo tegal méthode bu ñu mën a jaar boo xam te ni buñ ci jaaree non seulement daanu defar sunu sunu àddina niñ ko bëggee daanu mën a développé suñu àddina waaye e, daanu daanu mën a jaar yoon bi ñu mën a yóbbu ci suñu borom kon li may wax mooy ci gàttal mooy ne eh, xidma mooy loolu léegi nag méthode la bu nu sëñ bi bàyyeel ni ñu ñu war koo roy war koy appliquer kenn ku nekk nag xasaba sa sa sa spécialité sa xasaba sa sa sa sa capacité ak xasaba la nga man waaye méthode bi daal mi ngi nii sëñ bi teg na ko mi ngi mel ne aw yoon la ba mu xaal ne jaar leen ci kon ku ci jaar rek yaa ngi liggéey sëñ bi yaa xam na ci ban fànn nga koy liggéey la ndax définition bi wax naa la ko waaw ki ki ki ki te ki ki ki yar ndongo yi masalan wala ki nga xam te ni mi ngi jàngale ca école ba eh, te te mu jublu ci loolu ma la wax maanaam d'abord euh, ngërëmal suñ boroom ak ak ak euh, iraada bi maanaam euh, jublu ci yàlla Euh, foofu xam naa ne ñëwaguñ ci mais xëy na mën naa am bu des wax daañu ci ñëw ci iraada ci bopp ndax sart na ci xidma dégg nga su ko defee loolu euh, jubluwoo ci ñi leneen lu dul ngërëmal suñu borom ni c'est-à-dire ni ko sëñ bi defee ak ni mu ko appliqué moom ndax sëy bi lépp lu mu doon def xool ci leneen moom yàlla la cee xool ca wax ja ci ci mbind ma lu mën a doon yàlla la ci wax rasulullah kon ci sens boobu la ñu war a appliqué kon xidma kon lu neex a jàpp la mooy sëriñ bi eh, sos na xidma tëral na ko mu di yoonu comportement ak yoonu pratique bàyyal na ko nañ ko appliquer waaw kon loolu ma sunu xidma foofu lay dugg kon